yaa ngi dugg euh, ci yaa ngi bëgg a jël fonction présidentielle ça va vous éloigner davantage de euh, de de de de votre famille. ma famille de vos enfants. ma famille est habituée à ne pas me voir parce que j'ai eu des responsabilités assez tôt et c'est des responsabilités qui m'ont éloigné de la maison donc euh, même déjà directeur général des impôts je voyageais beaucoup j'étais plus sama yaram bi xam nga lu muy xasan fi mu nekk liggéey. moi j'aime bien travailler voilà donc euh, c'est c'est ma passion c'est mon divertissement aujourd'hui focus campagne électorale et si on est élu focus travail régler les problèmes H24